asalaamaaleykum ñëw fii si zone 11C bu ANET doon fi amal suñu championnat populaire nawetaan mu nekkoon suñu première match demi-finale mu doon ndox si diggante ASC Liberté bu ANET ak ASC Deggo bu Ndiréen mu nekkoon match boo xam ne vraiment bu neex la match bu amoon dut ba amoon ambiance seetaan gi doyoon na macha allah amoon na ambiance terrain bi neexoon trop. bal bi circulé na ñaari équipe yëpp kenn démérité wul vraiment football nañu football bu rafet waaye occasion de but de part d' autre euh, match bi nag liberté boo xam ne moom mujjee daan ñaari bal si dara pàcc bu njëkk bi nag moom football nañu première mi bi kenn dugalul sa morom dara ba ñu demee si deuxième mi-temps bi ñëw nag si la euh, liberté bu aaneen am ñaari occasion de bi daal di leen dugal mu nekk match bi noonu la mujjee jeexee Liberté bu anin mujjee daan jéego bu kër bu ndiireen ñaari bal si dara loolu moo fi nekkoon si suñu programme tey